nuyu sëriñ bi sëriñ Abdul Ahad Gaynde fanno dakantal yu am na ci solo lol ndax turando yi da bari waaye dina tax boo diw mi ñu xamne ne ngay wax sëriñ ci Abdul Ahad Gaynde fanno di sant yalla suñu borom mom mi nga xamne lu am moma bi nga xamé ne may nu fekké wat ko té tal ko nu tok fi nu togon daw mane ko nin ko mane woon ñu sant ko ko moom sunu borom ndax def na ko te waru ko ndax sunu boroom dara waru ko da koy def ci coobaram rek képp koo xam ne fekke woon na daaw te fekkewul ren ñaan yàlla sunu borom mu yërëm leen te jéggal leen ndax ñàkkulee am na ci te koy ñaan sunu borom mu may nunu fekkewaat ko te tal ko ay ati ati at muy bis boo xam ne jëm ci guddi goo xam ne muy laylatul xadri te dayoo bi mu am ci diine ni muy mën a toll yëpp kenn mënatu koo tudd te boole woo ci soxna Maymuna bintul Xatim looloo nag muy lu ko sunu borom baaxee mu am menn mbokk mu baax moom ma mos a wax ne ma maa ngi koy nettali sëñ Mouhamadul Mahfous léegi mu ne ma da ko tuddee loo xam ne xëy na daa bëgg muy lu neex a dégg wala mu yomb a dégg mu ne wirisu sëriñ Touba virus bi ku koy nattable ku ne dalaa laalut wala laalul koo xam mu ne ma boo fàttalikoo laylatul xadr ji nga xam ne wax nañ ne soxna may muuna moom la njëkk taxawal ànd ko Cheikh Mahmadul Fadil am na ku ca dugaloon loxoom ku ñuy wax amadu Mokhtar Mbow mu doonoon loo xam ne ay ndab yu néew la woon mu ne ma nag boo xoolee léegi tey ndab lu tuuti loolee ñu yoroon mook soxna si ñëw ci as Cheikh Mamadou Fadil tey jii ñaata giléem ñaata xar ñaata nag ay ganaar ak lu ñuy war a lu dagan lu nekk nu muy toll Amadou Mokhtar Mbow moomee dem na ba ci àdduna ñépp xam aw turam ak foo xam ne fii moom ci boppam sax bett na ko loolu mooy barkeb sëriñ Touba sëriñ tuubaa nag mooy ki nga xam ne lépp lu waay soxla ca jaar ko ci moom sa diggante ak sa boroom te muy dëgg ci yow te nga am na pas-pas doon nattab la mukk ne loolee da nga ca teg sa loxo kon guddi googu di guddi leele du xaddar baax na lool tedd na lool ci diine diggéey sunu borom yi bari na ci loolu xayrun min alfi sawt waaye nag nun dañ koy làmbe lépp lu bokk ci sëriñ Touba nu def ko muy sunu bunt te la ñuy lëng la ñuy yëngatoo ci biir diine kon koo xam ne kii màggal nga laylatul xadri bi màggale ko ci ni nga xam ne ni la ko soxna si sose woon ba agsi ci loxo yi mu nekk tey ci sëriñ Mouhamadul Mahfouz ak sëriñ Abdou ak soxna si loolee kenn ko ci nekk pas-pas ba nga koy defee da nga cay boolewaale warmal sëriñ Touba. ci léppam nag jëmmi sëriñ Touba ji njabootu sëriñ Touba gi ku ñuy tudd di tudd sëriñ Touba lu ñuy tudd di tudd sëriñ Touba ci pàkkam yi bu boobaa di nga xam ne wa man yuasim hurumatillahi fa huwa xayrun lahu inda rabbihi inda rabbihi jooju moo mat a moo mat a wuti mooy te wóor na ne kuy dund ku nekk danga dee waaye bu boobaa nag wax nga xam ne li nga liggéeyaloon ci li nga liggéeyoon ci sëriñ Touba ci warmaal ko warmaal lu ko jege danga xam ne tey jii nag añ baa ngi nii moom la alquran di wax wa man yuhasim hurumatillah fa huwa xayrun te nag wa man yuhini laa fa maa lahu min mukrim koo xam ne yàlla mayu la nga mën a bokk ca teraanga jooju ak tedd nga jooju ku yàlla bind munta tax nga bokk ca ku yàlla suufeel kenn mënu koo yëkkati ku yàlla tegg teddadil kenn mënu koo tax a tedd ital mar'u lam yuxlaq saidan min al azal faxat xaaba man rabba wa xaabal mu amalu doomu aadama ji bu sunu borom nammul ci moom mu texe ak ku ko mën a yar ku nekk du sotti fa musal la si rabbaahu jibrilu kaafiru ba musal la si rabbaahu firxawna mursal xoolal ñaari yar yi nu ñu wuutee kon loolu mooy tax nu wax ne képp koo xam ne yaa ngi màggal guddi gi di ko màggale ci warmal sëriñ Touba ak ñooñ sëriñ Touba loole bu ëllëgee di nga xam ne warmaaloon nga lu mat a warmaal warmaaloon nga ku mat a warmaal sëriñ Abdou nag mu nekk kenn ci noonu ci anam yëpp nag ci anam yi ci war a daje yëpp yëpp yëpp kon de nan dugg ci li doon wax léegi ci waman yu xasim xurumatillah ñu màggal sëriñ Munta sëriñ Murtada moom Cheikh Mamadou Fadil waaw dafa mel ne moom àgg na ba noppi ndax bu ñuy jëm ci warmaal sëriñ Touba ku la gën a jege Serigne tuubaa agsi kon lañ doon junj agsi na borom Daaru Muxti dafa dajale woon njabootam yëpp ay jamono ci njiitul Serigne Mohamed Awa Balla xamal leen ne leen ku leen gën a jege sëriñ Touba def leen ko muy seenum Serigne Touba noonu nag ndono loolu rek la ñuy ku la gën a jege Serigne Touba rek. def ko muy sam Serigne la nga xam ne nag moom lañ cee séentu te di ko ci wut gëm nañ ne faaw nu am ko. ñëpp mënuñoo maase ci ne nii la ñuy toppee sëriñ bi wala nii lañ koy fase wala nii lañ koy jàppee ndax ni doomu aadama yi wuutee ñii gudd ñii gàtt ñii xees ñii ñuul noonu la pas-pas yi di wuutee waaye nag kenn ku nekk nag sa pas-pas ci sëriñ bi na mu ca toll sëriñ bi dana defal lu kawe njort ca loole kon yàlla na nu may am pas-pas ya gën a kawe suñu digganteek moom di ko warmaal ci biir di ko warmaal ci bitti te ba àddunay tukki nag hmm. képp koo xam ne teddadeel nga Serigne Touba. Hmm. wala pakkub Serigne Touba wala lan ni Serigne Touba. Hmm. ba noppi toog di ko bàkku du am mukk moom. Hmm. ku teddadeel lépp lu bokk ci sëriñ Touba ba noppi taxaw di bàkku doo ko gis mukk ku ko teddal ba noppi itam nag wëlbatiku di ko rëcc doo ko gis kon sëriñ bi ñaan yàlla suñu borom mooy nu fekk ko déwén yu bëree bëri. de la seedeel na Serigne Abdou suñu lépp la ci wet yëpp nag. ndax ki nga xam ne mooy samam tafo moo toppoon ci man soxna May mun a la ko la ko Serigne Abdou Khoudous tudde woon. mo topon ci man muy lo xam dañ ko doon dundal diko rafetal ba soxna si de koor gi ma mujjee woorandoo mom fi mm-hmm. barkel yu ma joxone ba fi may wax yow amna yo xam mi ngi ma téye ko denc ko muy lo xam ne lii luñu ñu lu ñu Abdou khodous la ginnaw serigne Touba ak borom daru moti ak li nga xam ne na ci yépp kon serigne bi ñoo ngi ñaan mm-hmm. dajé gi ñu fi daje ci barkeb serigne Touba ak sa wayjur yi nga xam ni sababu bis bi ak guddi gi ma nga ca biir moo ko sabab nga may nu nu ñaan la nag mhm. ñu fi teew ñëpp mhm. yàlla may nu kàttan ak wér ban fekkewaat ko te tal ko te jàngoro ju fi nit indi mu faju aajo ju fi nit indi mu faju ndax it nag lu nit di am loo nekk ci bis la ko am ci waxtu ak barab ak ci jëmm loolu yëpp nag daje na ci am nañ ci yaakaar it bu baax a baax yàlla nañ ko fekke déwén yu bare bari di la seedeel sunu sant ci sëriñ Abdou mi ci anam yi nga xam ne moom la ñu ànd ci xeeti liggéey yëpp ak bokk gi ak taxawaay yi nga xam ne moom lay def ak warma ji nga xam ne moom lay jox képp koo xam ne kii war na la koo jox xam loolu itam lu jafe la bari na ñoo xam ne ñañ war a wormaal wala ñañ war a joxub cër duñ leen ko jox nañ leen ko joxe waaye nag day doon loo xam ne boo gestooy gis ne lii ma waroon a joxe kat ndegam ko moo tax ma ñàkk lii kon joxe li nga war a joxe loolu mooy li nga xam ne mooy li ci am genn góor gu gu gu gu gu am xel dafay wax ne war a joxe cër. wala wala wala wala wala wala joxe itte. Hmm. bu fekkee ne seetlu nga sa bopp. Hmm. boo demee fi barab séentu woon lool ñu yëkkati la ca kaw. Hmm. waaye ba jaaree sa sant teguñu ca dara. te xam ne kon joxe itteem baax na. la doon séentu gisoo ko. kon yeetam boo légee fexeel ba ku lu ñu séentu yow nga defal ko ko. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamualeykum wa rahmatullahi taala yaa maax yan an min qablu aw zara يا مكرم الضيف جارا كان أو زارا يا ماحيا عن قديم من قبل أو زارا